abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te Partout TV abonnez-vous tax xale yi ñoo toog Sénégal léeg-léeg da ngay gis ku nekk ci kër mais tekkul dara ci kër gi ndax amul waaye na ko yéen lu tax xaalis bi ngeen jël jël gaal par exemple trois cent mille yi ngay jël jël gaal di dem la ma mu mënoo ko investir waaye nag boo ko investir dañ la koy leb ndax normalement tey ku demoon ba nekk université boo génnee rek war nga mën a am foo intégré pour mën a liggéey. dafa am loo xam ne nit ñi ñu ngi koy dund ci famille muy pression familiale yi. da ngay faral di dégg sax ñuy wax ba naan Sénégal bu doon réew lañ buñ amoon ko jënd nañ koy jaay. jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati mbokki internet yi. yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu di ñu bàyyi xel jamono bi ñu toll nii mën nañ fi ñuy àddoo ngeen di ñuy teewlu saa su ne rek seen chaîne YouTube bi nga xam ne rek yéen ko préféré seen bopp partout TV. Euh, bi la yoon nag ñu fas yéene di kat comme niñ koy faral di defee rek mën nañ ñe ci euh, li nga xam ne rek moom mooy jàngat yi ay analyse yoo xam ne euh, yu pertinent lay doon tey nag ñu dikkaat ànd ak euh, beneen euh, waay boo xam ne rek mën nañ ne ndaanaan lañ koy tuddee ndaanaan ci biiri ndaanaan nee naa la ndaanaan dëgg piir boo koy wër da ngay dikk jàkkaarloo ak man ñu ànd ak moom muy caam Mourchid mën nañ ne ñu baree bari min nañ ko l'animateur du peuple lañ ko daal di dippee euh, moom lañ daal di jàkkaarloo nag ni kii tey fa seeni amal moom waxtaan wu dellu ci wàllu politique mën nañu jamono bi ñu toll nii Euh, précisément gis nañ nag li nga xam ne rek moom moo xew foofale ca diwaanu Wakaam gannaaw nag ay doomaanu Sénégal yoo xam ne rek ña nga doon fa seenee jël mbëkk mi pour nag dem foofale ca bitim réew euh, daal di daani seen doole wante nag li Olof Njaay di wax rek jaam ak bëgg-bëggam wante nag yàlla ak dogalam euh, ña nga ñenn ña ñi ngi daal di teeree ji fi nga xam ne rek moom mooy Wakaam ci tefes gi ñu jot li nga xam ne moom mooy seeni néew la ca ministre wax ak lan moo war a nekk solution yi naka lañ war a def ba loolee duutul am ci réew mii di Sénégal yooyu yëpp rek mën nañ ne buñ ko dajalee ànd ak ki nga xam ne rek moom mooy l'animateur du ci am Mourchid mu fas yéene see dikk ànd si ak ñun kon nag dañ koy wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah Mame Maodo ñu ngi lay nuyu di la ziara bu baax di rafetlu ni nga ñu seet see tey di ci kontaan bu baax a baax a baax di rafetlu aussi liggéey bi waa macha allah euh, wuyoo ngeen tur bi ñu ngi lay lu bu baax a baax di rafetlu say émission euh, di rafetlu say jàngat aussi macha allah rafet na lool tarikal la dégg naa sànq ngay tooñ naan l'animateur du peuple mais maa ngi naa ginnaaw voilà euh, comme ni nga ko waxee sànq ñu ngi tudd Ablaye Thiam mais ñu gën ñu xam ci Thiam Mourchid nekk animateur comme que nag animateur lañ depuis suñu bopp animateur du peuple kon donc bu nekk animateur du peuple peuple bi amee ay problème dafay. nekk yoon ñu taxaw def ay jàngat ndax ñun dañu préférer nekk la voix du peuple ku nekk voix du peuple nag sa peuple ba amee lu ko metti war nga ñëw euh, waxtaan ak moom waaye tamit ànd ak euh, mbokk yi jàngat ko maam buñ gisee li xew Sénégal laata sax loolu dañuy jaale ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu ngi lay jaale seen i seen i mbokk di ñaan yàlla yàlla yàlla xare leen àjjana waaye di ñaan yàlla yàlla may seeni waajur xolu muñ ak seeni mbokk yëpp ndax metti na lool mu nekk nag euh, loo xam ne maam phénomène boo xam ne du gulet du gulet bu tax ma wax moom mooy euh, yàgg nañu gis senegal ci jamono yu wees yëpp ñu naan gaal sàngam teer na bërëb sàngam Sénégal yi dee nañ nangam ña nga Maroc néew yaa nga fa extra loolu yàgg nañ ko dégg kon nag yaakaar naa ne loolu ba léegi problème boobu ba léegi mi ngi posé wu mais dafa mel ne ba léegi solution amoo amagu ci te jàpp naa ne solution du ci gaaw am ndax lu tax moom mooy fawuñu xool cause yi lan la lan moo sabab mbir mi problème bi lan la. lan moo tax xale yi nangootuñoo toog Sénégal moo sabab mbir mi problème bi lan la lan moo tax xale yi nangootuñoo toog Sénégal waaye ñoom koo ci gis daal tey boo waxtaanee moom lu mu tuuti tuuti moom mooy li nekk boppam moom mooy na génn Sénégal dem bitim réew. da ngay faral di dégg sax ñuy wax ba naan Sénégal bu doon réew lañ buñ amoon ku ko jënd dañ koy jaay kon ku dem ba bëgg a jaay sa réew xam nga ne découragé nga découragement boobu nag nga xam si euh, nit ñi dañ ko am loolu moo waral lu bëri fi mu toll nii buñ dee dem sa dootuñu dematee ak sago mais dama ñëw si cause yi tuuti euh, dafa am loo xam ne nit ñi ñu ngi koy dund ci famille yi muy pression familiale yi dafa nekk benn mbir boo xam ne tey mooy soob ñu bëri tey dañuy jéeg jéeg fipp xam nga ko fipp moom ànd toog ngay dem rek ndax léeg da ngay gis ku nekk ci kër mais tekkul dara ci kër gi ndax amul par exemple gis koo xam ne xëy na moo nekk taawu kër gi wala moo mag ci kër gi nga gis benn rakkam tukki rek am dara moom bu ñëwee bu nekkee ci kër gi léegi moom kër gi jaratu fa dara xalaatam du wéy daraam du wéy ci kër gi xale sax amul droit orienté ko ci kër gi mais kooku dañ ko rey carrément daanaka parce que boo nekkee sax ci biir kër war a nekk kilifa kër gi te moo dafa am voix ndax lan amuloo mais kooku day fipp fipp boobu mooy fipp na moom mooy yóbbu moom mooy moyen bu mën a am pour génn rek na dem parce que day jàpp ci boppam ne moom dee na ba pare dee na moom jàpp ne moom na dem baa mu des parce que moom li muy dund moo du ko supporter kon pression familiale bi da ci da ci bëri kon nag parents yi ñu bàyyi xel loolu ndax ngay gis parent boo xam dafay ñëw ci doomam du ko yedd nan ko yow yaa manqué xool doomu diw sàngam dem na bitim réew tukki na tere na ay waajuram yaa nga toog ci kër gi tekki woo dara defuloo dara xam nga genre mel noonu boo ko dee wax koo xam ne borom jom la bu yàgg dafay fipp bu fippoo bul xam bul xam fan la fan la jëm. beneen bis des muy pression sociale bi mu koy wax parce que bu ndee xool Sénégal maanaam ci wàllu liggéey da ngay gis euh, ndaw boo xam ne euh, dafay dem ba am ay diplôme te du am lu mu jàpp maanaam boo dee xool suñu système éducatif bi daal ni mu ni mu doxee ni muy doxee daal maanaam dafa dafa dafa méngawul ak jamono ndax normalement tey ku demoon ba nekk université boo génnee rek war nga mën a am foo intégré pour mën a liggéey mais da dem ba am say diplôme ba pare toppaat pour jéem a wut liggéey wut liggéey tey boo xoolee ba na ñoo xam si tey am nañ seen i licence am na seen i master mais tey boo nu xoolee tey ñi ngi ci ñi ngi ci mbedd mi ñii ñi ngi garde ñi ngi def métier yoo xam ne si bu ñu yëgoon teel ko def yooyu yëpp dafay dem ba nga xam si dafay jur nit ñi tamit di ah di di fippu di di jël gaal di jël gaal di dem yooyu yëpp ay ay ay problème la kon moom daal ñu fexe ba euh, di intégrer xale yi ku génn ñu fexe la intégrer dafay am solo beneen bis des da ngay gis tamit aussi looy gën a dem sa njàng looy gën a dem di gën a jàng di gën a am ay diplôme maanaam sa sensu liggéey di gën a wàññeeku te ma loolu def ma def problème boo xam ne xam nga fan laa koy jooytoo waaw xam nga fan la solution bi nekk yow kuy jàng te doo gën a dem di am say diplôme di gën a kawe ngi gën a am problème mu liggéey loolu loolu c'est ci pays bu mel ne Sénégal dafa dafa dafa dafa décourageant loolu tamit waral na ci xale yi ñuy fipp ba mu it ndeysaan da ngay gis itam koo bokkuloon école ngeen di jàng moom mu dem bàyyi jàng nekk ci affaire di dóor ba yàgg mu dem bitim réew yow nga nekkoon ci njàng mi ñëw moom mu dem bitim réew ñëw yor otaam yor léppam ah, yor këram yu rafet yor ay BM yu rafet loolu tamit de dem yàgg xale yi fipp daal dem yooyu tamit nekk na ci bokk na ci causes yi nga xam ñoom ñoo koy causé yeneen yi ci des moom mooy aussi man rafetluwuma nit ñi di jël gaal aussi parce que gaal euh, koy jëlee ak ni muy rayee nii euh, maam metti na trop te boo jëlee commune bu mel ne commune ñoom rek ñaata nit ci at yi ñoo fa gaañu ci ñoo xam si ay jeunes yu ay jeunes lañ yoo xam si ndox gi ndox mi moo leen yóbbu ñaata nit mënuloo ko lim dafa bari daaw rek am na ci koo xam ne sama xarit la El dëkk dëkkandoo ndeysaan football la nawetaan ba nawetaan yi jeex mu jël fa la fa la ko yàlla moomee pour wax la ne la maanaam xale yi am nañ motivation am nañ bëgg nañ liggéey bëgg nañ tekki mais Sénégal ni Sénégal moo neexula moo neexula tekkee Sénégal moo neexula moo neexula tekkee beneen bi des tamit dafa am lu reelu tuuti man ngi ko seetaan ci benn waaye démb reelu na quoi mais c'est la réalité euh, waaye na ko yéen lu tax xaalis bi ngeen jël jël gaal par exemple trois cent yi ngay jël jël gaal di dem la ma ne mënoo ko investir waaye nag boo investir dañ la koy lepp sa veut dire que maanaam pays bi ñu nekk moom pour dem ci moo jafe comme yow ba jëloon sa trois cent mille nga investir ko fii léegi nii waxuma la pour nga am dara mais pour nga jëlaat trois cent mille sa problème la mais kooku mieux vaut nga daal di tenter daal di daal di daal di jéem a daal a dem man daal li ma ci gis ci solution mooy faaw parents yi ñu comprendre seen doom yi parents faaw ñu comprendre seen doom yi dañu jéem a comprendre xale yi xam ne képp koo xam ne si jeune nga sa bëgg-bëgg moom mooy nga nga tekki mais ne tey nga tekki tey tey tey nga tekki loolu lañu war a bàyyi parce que pression boobu dafa bëri famille yi bëri na ñu koy dund tey nga tekki tekki woo dara genre kàddu yooyu noonu nga jël di ko wax góor di ko wax un jeune yoo xam ne rek day gaaw a tàng kooku bu fippoo dem mais lu lu am yow la voilà donc faw ñuy comprendre xale yi ne xam ne bëgg nañu liggéey mais tamit réew mi neexuloo liggéey parce que li ma lay wax sànq njublaŋ baa ngi fi dangay am sa xaalis ak investir ko fenn doo ci mën a génnaat extra extra extra dangay am say diplôme ba pare doo am foo dugg yooyu yëpp nekk ay problème kon donc nañu comprendre xale yi waaye tamit état bi état bi man li ma gën a jaaxal ci ci ci état wu Sénégal mooy maanaam problème bu amee dinañ ci wax wax wax nii mais bu jàllee jeex na solution bu ñu teg ay piste solution yoo xam si dañ c'est applicable dañ koy appliquer c'est un c'est un réel problème à chaque fois lan la ñuy lan la ñuy opté moom mooy euh, famille sàngam seen doom dem na des na ci géej gi nañu dem fekk leen fa ñu nekk jox leen ay dons jox leen xaalis mais après loolu lan la mën lan la mën ana solution yi il faut des solutions yoo xam ne si c'est palpable nga xam tey jii lii buñ ko tegee tey waxuma la tey euh, ndaw ñi danañ dem sax bitim réew mais ñu nekkoon bitim réew dañuy dañuy ñëwaat Sénégal pour jéem a liggéey parce que Sénégal mënees na kaa liggéey ah mënees liggéey mais est-ce que gouvernement bi tey mi ngi ci bàyyi xel pour côté boobu doon Sénégal am na suuf Sénégal am na ndox Sénégal lu bëri am na ko pétrole baa ngi fi mais pourquoi pas suuf Sénégal sax mu ñu ko exploité xool ndox mi ndox mi nekk dakaar ni mu sonalee ni mu sonalee ni mu waa Dakar te pourtant waa gouvernement bi ni ñu def. ba jël ndox mi Kër Momar yóbbu ko Dakar mën ñu def ba ndox ma nekk foofu tamit benn ndox la fa des demaa ci àll bi ñu dem bàyyi jóg. boo demee ci yenn réew yi ndox ndox taw duñ ko perte ndox bu ñëw am na fu ñu ko verser pour am na lu mu leen mën a jariñ mais pourquoi pas ñoom du ñu prévoir loolu. xoolal bu nawet dikkee dakaar boo fa demee dafa fa bëgg taxaw léegi sax romb na Dakar ci yeneen pays Sénégal yëpp daanaka foo ci dem Louga gi sax guddee gi day day taa ci Louga Louga Louga warul taa. te yooyu yëpp nan la politique politique bi moo jaaru yoon loolu faaw ñu taxaw ci liggéey ci joxe ci ay solutions yu applicable fexe ba maanaam ñu def euh, politique de proximité fexe ba askan li ñu gën a soxla li ñu am ñu fekk leen ci jàppale leen ci am na ko xam si boo ko bëggee jàppale boo ko bëggee aider danga koy fekk ci li mu li mu li mu li mu yore nga jàppale ko euh, euh, baykat yaa ngi fi demal waalo bu demee waalo temps yi pass dem naa fos xool àll bi macha allah ay baykat dëgg ñoom ñoo fa nekk ndox maa ngi foofu mais ñooy war na leen mën a def jàppale leen ba nga xam si tey ñoom duñ soxla dara boo demee benn secteur secteur boo mën a dem tey am na xam si ña nga fa am lu liggéey loo xam si soxla wuñ leen lu ku leen jàppale kon donc faw ñu xool seen politique yi ñuy def ba gër a jege nit ñi gën leen mën a aider mais à chaque fois dañuy seetlu daal li ñu seetlu moom mooy bu di faatoo da gis sax ci étudiants étudiant bu fi gaañu d'après duñ xam sax après kan moo ko waral lan moo ko waral duñ gis ne kii la kii moo ko def parce que man étudiant laa woon njëg naa UCAD mais tey ana ana ana ana ñi fi ñi fi faatu woon tey kan nga ma mën a wax ne tey jii nii ñi faatu woon ñoom Basirou ñoom ñëpp kan ana ñan ñooy responsabilité ba léegi cité leen te pourtant ay dañ ne woon dañ dañ dañ ci dox pour wax la ma a chaque fois man li ma si jaaxal mooy bu problème amee rek bu jéey amee rek. juróom-ñaari fan lay doon une semaine lay doon jeex na ñu coow ko jël ay denrées fii ay xaalis fii ministre dem fii dem seet njaboot gi fii mais pour ñu teg ay loo xam ne mën nañ cee teg suñu loxo loo xam si tey mën nañ xam ne changement lay am changement lay jur pour nga problème la beneen bi des te muy accident circulation yi tamit gis nga ko ah, temps yi passe bi fi amee gis nga jéey ji fi amoon ñaanu yàlla mu amaat fi mais xoolal Louga rek démb ñu ngi wax ne lu mat euh, vingt deux personnes à vingt trois personnes ñàkk nañ ci bakkan ci accident boo xam si mi ngi nekk côté Maka Baragay ci benn bus xoolal yooyu noonu te pourtant bi accident bu la amee ñëwoon nañ fi teg fii ay ay ay solution teg fii nañ li lañu changé extra extra mais ba léegi dara changé wul xëy na sax accident léeg-léeg moom dina ñëw circonstance yoo xam si moom voilà dañuy comprendre dañu ñoom dañu ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla jéggal leen xaral leen àjjana suñu gouverne gouvernement gën a jege nit ñi il faut que ñu bàyyi di profité tamit ci benn occasion bu amee rek ñu taxaw joxe ay denrées extra affaire yi loolu solutionné dara faw ñu teg loo xam ne dañ ci mën a teg suñu loxo ndaw ñi bu ñu bëggee ndaw ñi des ci Sénégal faw ndaw ñi am ci lu ñu mën a jàpp faw ndaw ñi ku ci am sa diplôme am foo mën a dugg mais imaginel am sa diplôme ba pare di xëy di tëdd di taxawaalu ah, réew moo xam ne si tey Euh, voilà caaxaankat yi lañ gën a jox gëdd ke borom cër yi imaginaire Sénégal loolu moo fi nekk Sénégal réew la moo xam si caaxaankat yi lañ gën a jox gëdd ke jàmbaar yi te ji boo nekkoon caaxaankat pour nga pour nga génn réew dafa yomb boo nekkee ci télé di wax wax caaxaan léeg-léeg léegi yow yaay gën a sax kawe ge yeen gaay yow lañ gën jox cër yow la yaay gën am confort extra extra moo tax ñu changer loolu Sénégal la moo xam ne si fi mu toll nii metti na xëy na yaram bi moo tàng sax bañ dugg ci yenn yi waaye parce que am na loo xam si boo ci nekkee di ko dund nekk la voix du peuple daf lay metti trop mais li ñu gis ni metti na trop xaw moo ne kañ la solution di am mais nag metti na trop faw Sénégal yi jukki seen wàllu bopp parce que itam am na loo xam si pour mu am faw détermination am ci ci ci population bi ñoom ñu jug taxaw gouvernement yi jàppale jàppale ñu ñu mën a solutionner problème yi ñaanatuñu yàlla dee di fi am ndax dëgg yàlla nag saa su fi doon sëkk eh, benn mbokk na ko rek mu ne est-ce que lii bu continuer Sénégal dina amati ndaw ma ne ko c'est un réel problème lii bu continuer est-ce que Sénégal dina amati ndaw dina amati ndaw boo xam ne toog liggéey liggéey Sénégal waaw ah, aussi tamit eh, boo xool tamit Sénégal fi mu toll nii ci moment bi ñu toll nii ci ay ay année ci kanam tuuti dina am problème dina am problème mu problème ku yor métier métier bu ñor xam lu ko waral argent facile bi quoi. léegi nit ñi xale sa sax jugatuñ pour jàngi métier pour ëllëg seen avenir mais léegi argent facile bi te yooyu yëpp mën nañ ko solutionner kon faaw ñu xool fi métti ci Sénégal suñu njiit yi faaw ñu xool fi métti Sénégal ñu jéem ñu koo fajal faaw ñu xool sa population bi lan lañ soxla ñu jàppale leen ci parce que am na koo xam bëgg naa dem am na xam-xam bi am na capacité yi mais ana moo koy pousser pour mu dem ana kan moo koy jàppale pour mu dem yooyu yëpp. ñu dooleel secteur privé bi su ko defee yooyu yëpp ñoom bu ñu leen doolelee dara na mën a gën a recruter ndaw ñi bu ñu recruter ndaw ñi dana wàññi benn taux bi nga xam taux de bi nga xam ne si mi ngi Sénégal parce que taux de chômage bi moom moo waral gars yi booy di dem loolu rek moom moo di dem di jël voie bi nga xam si kenn xamul voie lan la voie voie bu ne dañ ci ndax bëgg a tekki rek bëgg a tekki rek xam naa maam jaxasoo na mais daal Sénégal daal mi ngi noonu ñu ngi encore une fois ñi ngi jaale ñi nga xam ne seeni doom dañ ci génn àdduna di ñaan yàlla yàlla yàlla xaar leen waaye aussi tamit di ñaan yàlla yàlla yàlla taxaw seeni waajur ndax am na loo xam ne boo ko pertee dana metti lool surtout ma ndaw mi ngi xam ne ci ngay yaakaaroon ndax waajur bu nekk euh, bu sañoon bu demee ba nekk mag tuuti am benn doomam boo xam ne mooy jóg pour man ko appuyer fa mu taxawoon mu taxaw fa waaye nag comme que yàlla moom ay mbiram noonu la demee xëy na yàlla moom ay mbiram moom moom noonu lay demee waaw da na da ngay da bëgg rek waaye bul xam lu yàlla di dogal ndax itam am na ñoo xam si ndeysaan bu ñu xamoon ne bu ñu demee dañuy dañuy dañuy dee ah yàlla xam duñ duñ duñ dem waaye nag mbiru yàlla moom noonu la noonu la tëddee kon ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla defal ñu jàmm ci senegal ndax am réew boo fa nekkee te jàmm amu fa yow doo am jàmm waaw te jàmm nag moom ci la lépp xaj ni nga ni nga koy waxee jàmm bu amul doo xëytal dem liggéey lekk ba suur doo ko man doon naan ba màndi voilà problème yi amoon gis nga ko euh, fi amee problème gis nañ ñu bari ñu xam seeni euh, i place yàqu na voilà seen i yàqu na ñi xam ne waroon nañ xëy liggéey mun ñoo liggéey extra extra ko defee yooyu yëpp rek yal na yàlla def jàmm ci Sénégal yàlla defal ñu nawetu jàmm ah en tout ñuy kontaan bu baax a baax ci ñëw bi voilà partout TV macha allah euh, ñu ngi kontaan bu baax a baax xam naa loolu mu nekkoon kàddu yi jaxasoo na lool waaye ñi ngi ci profité di nuyu mbokk yëpp rek waaw fans yëpp rek di wax ne dëgg yàlla am ñu seen fay suñ jëmm ji xew yi nga xam si chaque moment nit ñi ngi bàyyi xel di ñu nemmeeku voilà loolu dañ koy sant yàlla waaye itam di leen sant ndax ku dul sant nit du sant sant yàlla sant leen ci gërëm leen ci bu baax a baax xam naa gudd na te solo gi demee woon noonu ñu ngi wàccee kàddu yi di wax merci beaucoup maam ay ca di leen di jaajëfal yéen mbokk yi nga xam ne rek eh, yéen ñuy topp saa su ne mën nañ ñe eh, di ñu suivre bi la yoon nag ñu dikkoon ci numéro une bi ànd ak ki nga xam ne rek mën nañ ñe présenté nañ ko sànq eh, muy l'animateur du peuple mën nañ ñe Thiam Mourchid mu dikkoon ak ñun nag ci jafe-jafe yi nga xam ne rek sénégalais yi ñu ngi koy dund ci mbëkk mi ba ay doomi aadama di si ñàkk seen bakkan loola kat mën nañ ne lim si jot indi rek euh, ay solution mën nañ bu fekkente ne ki nga xam ne mooy président de la république ak ñi nga xam ne rek ñoom lañ dénk lépp lu dellu ci wàllu biir réew mi ak euh, bitim réew ak la ca aju rek war nañ see mën a daal di bàyyi xel bu baax a baax pour mbir yi ni mel di bañ di répété wu prochaine fois di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di woy di abonné ci ma chaîne YouTube Partout TV ba beneen yoon ñu dikkaat ak yéen jaa ngeen jëf